coow lii yëpp Frank Timis ko indi Frank Timis bi nag mooy ñëw leeral diggante moom ak li nga xam ne mooy askanu Sénégal nee na Aliou Sall démissionné na kon coolaa ngi commencé nag ëpp doole Frank Timis jàkkaarloog askanu Sénégal ñu dem seeti ko cin foqul ba ñuul ana yax ba fu mu jaar ma ni cin foqul ba ana yax fu mu xam nga am na loo xam ni soo koy wax dafa war a fekk nga xam lu nekk ci cin bi Aliou bu demee ba génne kaamin waat xanaa yéen ay jullit parce que Aliou lu ji njaat du alin lu ji njaag man may njaag lu ji njaag njaag gi te man Frank Timis yéen sax seen yaram war na dew ndax man Frank Timis duma jullit waaye bu ma demee ba yàlla def sama sant bi ak julli bokk ngeen war a seen yéreem yi deew su ma neexoon sol ay pablos waaye marakis lay sol parce que xam ne ne ñi may waxal ay jullit nee ñu man sama caatu yaay laa sama yaay man la mujjee gis suñu taaw ñun lu ñu am rek am na xam na fu ñu ko teg man dama bëgg ngeen bàyyi Aliou Sall tout tranquille deful waxul tooñul lu di njaag du moom man may njaag Aliou suma courtier rek la woon dama ko doon yónni muy jël facture du yóbbu musuma jël xaalis teg ko ci loxoom boo xam ne da ko jël pour dugal ko ci gafam gis nga ñiy wax ñëpp di wax affaire u Aliou Sall billaay ñu ngi toon te yàlla xam na ne ñu ngi toon jàmbur parce que góor dëgg mooy def li mu def su ko neexoon du démissionné parce que moom lu am rek dafa wax ne bàyyil ma muñal sama bopp muñal suma mag pour mu liggéey naafiq yi yi nekk Sénégal nga xam ne coow rek li ñu bëgg yow pétrole bu génn gul gaz bu feeñ a gul xeeñ gul te ngeen bokk ko beneen dëkk buy Mauritanie est-ce que dégg ngeen waa Mauritanie wax ci gaz bi pourquoi Sénégal mi ni tar tar tar tar tar rek cooli cooli man la lu jinjeek man la loo di waxal man la ah. kon pourquoi ngeen sonal Aline gis nga yéen boo leen jullee timis ngeen ñaan yàlla mu baal leen àq que tooñ doomu jàmbur baaxul Aliou Sall ameen ngeen ko àq de cooli cooli man la man la defal nañ ko waa léegi man yéen a gën a xam ne bu timis jotee dara dootul leer day leen dem man mii maa leen dem man la sama affaire leerul léegi nag yéen ut leen fulla ñu jàpp ma te ngeen bàyyi Aliou Aliou deful waxul cin bokkul fa noonu yax ba anamu yax baa ne booy war njubleng maa ngi nii njubleng man le billaay Alioune deful man maa def lépp man may njubleng man maa jubul man maa dëng man maa leen dem parce que xam nga lu tax ma leen de fajar dafay leer tisbaar day leer nañ takkusaan ne ko danduma timis muy nekk diggante leer ak leen leen dem man maa jubul may wayu man may njublañ may fekk réew bu war a dox ma laqoti fa def fa tuuxa doona way ci bëggul bokkul yax ba mu ngi nii man ngeen war a ne kirting jàpp ma wax leen nu mu demee te bés bu ma waxee nu mu demee Sénégal boobu dina ñaaw de dina metti de am na loolen foogul ak koo foogul mu ne tekk te ci la kon bayi leen Aliou man mii ngeen naan kirtin jàpp mu wax leen li am da ngeen di mën a wax rek da ngeen di mën a yeewu yeewu leen de bu dee gàllaaj la maa leen ko ëppale fii ak fii bi ñuy naan ak bi ñuy takk ak bi ñuy jolu jeex naa fépp xam naa lépp tool yi day dem rek waaye ju mujj fenn maa jubul duule fële rek lay def men ba pare loo leen ci gis nga li gis nii rek ma yàlla man lu ma la wax sama wax jalu muus la may waxu man ay wax gis nga li ngeen ma gis nii ak sama kanam gu wajaaral gi man meew rekk lay def nettali ak tas dëkk rekk laa fi nekk njublañ bu bon a ngi nii ku doon seet sàcc sàcc ngi nii ku seet wëyu wëyu bu bon a ngi nii man daal yàlla moo ma nattu xetu gaz ak pétrole lay bañ a gis fu ma dugg ci dëkk ba tas man daal man daal man maa bon rek maa bon maa mën a man daal maa ngi nii du ma wax dëgg wax du ku dul wax dëgg ni ngeen koy waxee Sénégal ni ngeen koy waxee kii rek la mën moom laa mën ku bon la man sàcc la wayu la baadoolo la taskatu dëkk la Alioune waxul deful ma wax ma def ma jël te du mujj fenn